salaamaaleykum mbokk journaliste yi d'abord balaa may tàmbali dama leen di baalu ax ngeen baal maax tabaski bi xam ne moom lañ jóge yàlla nañu yàlla baal yàlla nanguñu suñu jaamu yàlla yëpp yàlla na fi yàlla jëlee li nga xam ne maanaam moom mooy bas bi tey dañuy woote point de presse bi pour attirer la situation lii nga xam ne tey maanaam moom mooy feebar bi mooy bas yaakaar naa ni tey bu ñu waxee tey Dakar Thiès moo si topp situation bi xaw na critique lool si loolu ñun mouvement And Soppi Sénégal bi situation bi amee ba léegi mooy presque juróomi weer ñu suñu loxo ñu ngi jege askan bi ñu ngi jege la population si domaine bu nekk nag si wàllu jàpp si wàllu alimentation bi si wàllu masque si wàllu gel si wàllu yëpp flyers yi si loolu niñ ko xamee situation bi dafa gën a doy waar dafa gën a critique am na ñeen nga xam ne sax dañoo jàgg dañu waxoon ni seen bopp parce que amul mais ñàkk xam ñàkk ñàkk bañ dara rek comme yàlla dafa def bas bi ni muy gën a sonal mooy xale yi ak mag yi si loolu boo xoolee cas communautaire yi bëri na mooy wàllante yi

il faut que acteurs politiques yi seen bopp gëm seen bopp ñi nga xam ne maanaam fi lañ dëkk si gox di di wax ni que ñoom c'est des gens de c'est des développeurs yoo xam ne dañ liggéey ngir askan bi ñoom aussi dañ si war dugal seen lox bu baax si loolu ñun ànd soxla Sénégal bu ñu dem ba def prise de conscience xool ne masques yi joxe nañu ay masques état aussi tamit li may faral di wax toujours état mënu def yëpp le président public il a beaucoup état beaucoup fait fait, distribuer un masque à gauche à droite mais taxul ne a pas ngi yok si nous ñun dañu décider def def bi ay ce qu'on appelle ay campagne de sensibilisation parce que fàtte ko en français c'est-à-dire actuellement comme ren nawetaan amul yëpp amul comme actuellement les vacances sont là on va maintenant prendre les étudiants du mouvement ah, il y des jeunes du mouvement pour lan pour ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation campagne de sensibilisation moy lan nous faisons dans chaque quartier par dans exemple dans la zone nord 19 quartiers. dans la zone nord 19 quartiers la quartier bu si nous faisons pour le monde. mot fanweeru jeune Ça yuy c'est des volontaires du mouvement sur Sénégal Nous sol des ay casquettes des ay t-shirt pour lutter contre le moo Nous sommes di ngeen seen nii moom lañu ay casquettes yor seen g dugg di sensibiliser la population contre danger bu xam ne ni ñu koy négliger ma mu si biir yi si dañu créer un comité comité yu xam limay faral di wax ne que inshallah dina dama à partir de lundi dañuy démarrer dans les différents quartiers de Thiès chaque semaine day am ben bureau bu xam fi mo fi nek alerte jeunes yi yëpp def ci quartier anomalie yi gis yëpp dañ koy souligner wax ñu ko ñun on attire de l'autorité. limay faral di wax toujours l'autorité ne peut pas tout faire il faut que au moins les acteurs de développement ñi nga xamné ñoo seen bop ñom c'est des acteurs politiques indi sa lox yag na ko bokul si ki bi sax moy té toll instant bo xamné Sénégal wax bi amu fi maanaa ay dajolo ay marche li moy combat bi moy la moy bas bi jóge fi c'est est notre salaire notre seul combat ñun ñëpp lañ ci wara a ci lolu jëni c'est des jeunes volontaires qu'on a déjà formé comme légui yalla dafa def dajé yi dañ koy téré ñun légui dañu arrêté tous nos rassemblements dañ ko arrêté léegi ci loolu ñun bo xolé sax campagne médiatique bi ñu gëni def on a am une plateforme de mouvement si fofu ñu jotalee les informations bo xolé tay ça point de presse tay j'ai pas informé à la au mouvement uniquement le bureau des jeunes la a convoqué bo xolé ay ndaw rek ñoo fi nekk ñëpp kenn yëgu parce que affaire bi ñom la ñam ñoo wara a dem yaakaar na ni son sans le président Macky Sall wax nako il faut que jeunes yi gën a dolli garwalé gëna doli def sen sen protection parce que dëkk tey lu koy développe jeunesse bi si loolu décider tey population bi si sensibilisation donc si ma pour stopper lii nga xam ne maanaam bi si loolu moo tax tey ne tey sama journaliste pour aussi attirer attention la population Essoise pour dire que danger ces ngi

cette situation, Merci bien. je pense qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le président est très conscient de ce qui se passe. Je pense que même comme vous le savez, euh, en dehors du Sénégal, parce que je disais même la maladie, c'est pas, pas, la maladie, pas la maladie africaine, <laughs> c'est la maladie européenne. Aujourd'hui, comme vous savez, en ce qui se passe en Europe, ils ont même décidé maintenant de fermer toutes les structures des discothèques, ainsi de suite. Je pense que si le président le fait aussi, c'est une bonne initiative. C'est pour surtout sauvegarder, protéger surtout la jeunesse. Il a dès le dit. Parce que je pense aussi l'État a beaucoup fait. Maintenant, les masques ne suffisent On a distribué des, millions de masques, des millions de gels. Mais les choses sont en train maintenant vraiment de prendre de l'ampleur. Je pense que si le président le fait, moi je suis tellement avis, je suis à son côté, je suis favorable dans ce sens. je pense que la seule, la seule solution, le seul moyen, c'est de suspendre actuellement tous les événements religieux Parce que la situation devient plus grave. Même le calife général, si vous voyez, il porte, porte des masques. Regardez ce qui s'est passé au niveau de Medina Je salue le passage. L'actuel calife, c'est mon ami. C'est Maïb, c'est le passage depuis que le décès du calife, là les cas sont de plus en plus de les cas sont en train de s'amplifier. Je pense que, à mon avis, le président de la République d'abord doit faire les voir rencontrer les califes généraux, discuter avec nous, avec surtout les techniciens de la santé, pour l'expliquer vraiment quelles sont vraiment les réalités. voilà, voilà le problème qui se pose. Je pense que, comme vous le savez, on a des chefs religieux, machallah, qui sont très ouverts, qui sont des intellectuels, qui écoutent les informations, qui écoutent les réalités. Le calife en personne même pour son masque. Je pense que c'est une bonne initiative que le président en personne, il se déplace en lui-même, faire une tournée dans toutes les maisons religieuses pour aller rencontrer le calife, que cette année-ci, comme on l'a fait on a, comme on l'avait déjà fait pour ne pas prier dans les mosquées, pour aller faire le retourner d'abord, aller rencontrer les khalifs, pour dire que maintenant je pense que là il faut, il faut laisser jusqu'à l'année prochaine. C'est la meilleure solution. Voilà, c'est pas waaw li may wax mooy rek euh, affaire bi euh, rafet na lool euh, man xalaatoon naa tey ñu dox ci màggal bi am na ñu xam ne ànd nañ si ñu suñu xalaat moo nekkoon tey ba suñu saga tey yaakaar naa ne Sëñ Tuubaa sax wax na ko màggal sa kër sax moo gënoon li ñaan mooy sonné sans le président Macky Sall bu def benn tournée dem c'est toutes les khalifes religieux buy demaale nag àndale techniciens, des gens yoo xam ne ñu xam métier bi mhm. pas des théoriciens ñu xam métier bi wax xalifa bi voilà les réalités qui se posent tey lii bu ñu ko defee mun na gën indi ay problème yaakaar naa ne bi commencé julli ci mosquée bi yàggul mosquée te jot nañ ko mais gis nga buñu ñu mosquée yi kaay dafa gëna a doole tey boo xoolee li faral di waxee de passage ma ngi nuyu sama sama xali la xalifa général ma dina bàyyi sama kharit la c'est maïk Euh, sama xarit la sama sëriñ la euh, yaakaar naa ne bi décès bi xalifa amee de ñu ngi leen jaar de passage si loolu bi mu amee rek kaay dafa gën a yokk boo xoolee le lendemain lu ma plus de 40 am na fa même jour donc tey lii tey dafa doon lenn lu xam ne tey pour war nañ ko woo war nañ ko waxtaanee dem seeti ñii nga xam ne maanaam ñoom ñooy mënd bi ñun ñooy yor affaire bi ñu waxtaan ak ñoom bu di bu doon suñu sago tey màggal Tuuba euh, kii bañ am ren parce que yaakaar naa ne yent bi sa sa wax na ko nee bu musiba amé ci benn dëkk bu kenn génn dëkk bi ñëpp nañ tok kon donc lu tamit solution la tamit pour ki yaakaar naa ko ñëpp comme ni ko xamé xalfi bi si moom sax boo gisee tey mu ngi sol masque man amna ci kuma séti won mais mo togué toogee distance de 1 mètre laa toog ak mom di waxtaan ak mu ne abib mu ne ma lii moom lu jar ñaan la dañ fa ñu suñu loxo ñaan borom bi ñaan aussi tamit da ngay fagaru donc lolu mom rafetlu président bi mu def lolu